bismillahi rahmaani rahim salaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad rasulillah ginnaaw boo ñoo sante suñu borom julli ci yaa rasulullah ñi ngi yëkkati kàddu nuyoo ak ziyaar teg ci loxo sëriñ bi mu jottali ko ci ñu fa teew ñëpp di nuyu le président de l'Assemblée nationale, maire de Richard Toll, Amadou Mam Diop préfet du département C'est Moudou Ndiaye mu am am solo département de Saint-Louis di nuy kilifa yi fi teew yépp ak képp koo xam ni jóg nga wala amoon nga yéen a jóg ñëw teew fii ci ziar sëñ Mor sëñ Mor Diop xëy na wax bi dana xaw a jafe tuuti parce que jataay bi nu mu bindoo la président assemblée nationale dafa teew ci maanaam mbubb yu bëri doom la ci kër gi comme nuñ ko waxee léegi waaye teewaay aussi teewaayu président assemblée nationale assemblée nationale moom la ñuy wax le pouvoir maanaam législatif banqaas la ci pouvoir yi man su ma fi teewee ñaari mbubb la fi mën teewee mbubbu ministre muy manam le pouvoir exécutif manam président bu defee politigam définir politigam gouvernement mooy doxal politigam am loolu mooy le pouvoir exécutif waaye aussi mën naa fee teewee maanaam taxawaay meeru dëkk bi maire dëkk bi nag du borom dëkk bi dañ ko dénk loo xam ni moomu ko mu nekk dénkaane boo xam ni da indi indil tiitaange parce que da nga war di indi toujours ay saafara ci mbébétu askan bi loolu nag dañ ci tàllal loxo ñaanal ñu suñu borom yan na bu ci rëccu am su fii toog fii ànd feek kilifa yépp fii ci ëtt bi xëy na du guléet ñëw nañ fi ñëwaat fi borom ziar bi fekk nañ ko fi yàlla def na ni depuis deux ans à peu près ah njaboot gi ñoo fi nekk moom foofu nekk ñu koy ñaanal suñu borom suñu borom tegal ko ci àjjana yu gën a kawe suuf sedd ci kawam te lii mu namm ci ziar bii dem sëñ Modou du ko yeggal yar nañ ko yóbbu foo xam ne wees na njortam loolu di ñaan rek luñ fiy mën a ñaan muy tawféex ak lépp loo xam ne dana jéemale réew mi kanam ñu boole ci président de la république pour que yan bi ñu ko yan mu woyof toll ci moom yore dëkk dafa xaw a diis jiite askan dafa xaw diis mo xamni askanu daara la wala mo ko ne aussi benen askan la waaye luñ ci ñaan rek moy liggey bu lu suñu borom tek liggey bo ne ñaan suñu borom suñu borom fexe ba nga mëna motali liggey bobu ci jamm ak salam man day xeyna lu ma wax moy ci turu maire parce que ñu ngi ci diwanu Saint-Louis périmètre communal bu Saint-Louis yu jéem am taxawaay nag parce que sànq sëñ Diop doon na ko wax am na yoo xam ni a ah, tàlloolu nañ loxo commune bi pour ñu jàppale leen ci jéem nañ cee def ay jéego am na yu mat am na yu matagul waaye daañuy fexe ba nga xam ne lu matagul yu jéem cee defat ay jéego xëy na du mat mukk parce que mbébétu askan moo tëddee noonu dara du mat waaye nañuy fexe ba di def di ci def ay jéego ba suñu boroom def mu am loo xam ni satisfaction dana ci am ci askan bi et ci loolu wàllum mbedd wax nañ ko fi léegi yàlla dafa def ci wàllum mbedd ci wàllum yoon président Macky sàll dénk ma ci dénk ma Ageroute bu yore wàllum yoon yi waaye aussi dénk ma fera bu amee wàllum yoon te directeur général bi toog fii muy Papa Ibrahima Faye maa ngi koy wokk léegi ni ko tali bi nga xam ne wax nañ ko na ca taxaw parce que am naa dogal ci moom ci ginnaaw président bi sant ko ni na ko def te bu neexee yàlla ci biir année bi axe boobu dana ko tàmbali bu neexee yàlla di xool nag leneen loo xam ni mën nañ ko cay yokk pour que maanaam ñu mën a am satisfaction askan bi bu boobaa aussi daañu ci taxaw luñ ci mën a taxaw manam yokk ko ci en tout cas ci euh, njiitu le préfet du département parce que bu maire togué préfet tok té préfet amé le contrôle ah luy maire di liggéey à travers ses délibérations donc mom daf ci am aussi cër bu am solo cër bu mag té cër bobu mu koy doxal suñu diggante te ñu am ci contentement bu am solo donc wax ji du gudd bu guddee mën nga ci wax loo xam ni lu yàq la donc mën du may faral di wax wax ju bëri lu ci am solo rek mooy sàkku ñaan encore une fois sàkku ñaan ci ndigal yi nga xam ne président de la république jox nañ ko waaye sàkku ñaan aussi pour jàmm ci dëkk bi sàkku ñaan ci lu nga xam ni mag ñi baax ñi woon nañ ko Sénégal muy jàmm ak àndandoo ak defar jàmm jooju mu sax sàkku ci pour que ndaw yi ah ñu jox cër mag sàkku ci que diine gi place bu mu nekk place boobu ñu gën ko dëgëral parce que Sénégal diine gi moo ko yore bu ko diine gi yorul woon lee di xew suñu ay voisins yi yaakaar naa ne dana xew fii waaye def na Sénégal mag ñi baax ñi fi am luñ fi bàyyi ñii fi nekk ci génération bi yi donc ce ku ci nekk ci ñun responsabilité la responsabilité boobu nag dañ ko war a ba mu mat sëkk Sénégal ci biir sous région bi ak dëkk ko wër ñu différence bu am Sénégal ak par rapport yeneen dëkk yi loolu nag ku ci nekk ci ñun daf ko war a doxal loolu te teel sotti ko ni boo defaree sa kër defar sa mbedd defar sa gox defar sa commune yaakaar naa ku ci nekk ñun bu géerul boobu Sénégal fii muy nekk dana jëm kanam dana gën a kawe donc loola amoon ci ay kàddu donc dénkaane euh, bu dëngee nag ci man la yéene bi du loolu yéene bi wax ji defar dong la may gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf